taxaw di war a tàggat lu mot téeméeri xale ci loo xam ne ni buñ fi jógee ñoom dañu war a maanaam demal seen bopp demal seen bopp mooy dañuy def ci ñoom métier métier boobu ñi koy def ci ñoom ñoom ñooy ay waa ANAMO mooy agence euh, nationale de la maison de l'outil ñu doon euh, état du Sénégal état du Sénégal war a a taxawu jeunes mu jàpp beneen partenaire boo xamee ne moom tamit dafa jàpp ne ni dafa war a taxawu jeunes yi ñu ne kaa ñu lënkaloo pour xool nan la ñuy jàppalee ndaw yi parce que comme ñëpp mënuñu liggéey directement ñu ne nañu fexe wut yeneen feem yoo xam ne nit ñi dinañ mën a demal seen bopp mais demal seen bopp boobu mu ngi am njëriñ bu fekkee ne ni formé nañ leen si ay métiers yi nga xam ne moo fi nekk mooy ay métiers innovants yoo xam ne ni tey jii nit ki mën na ci pare léegi ñu jox ko ay léegi mu tàmbalee téye njabootam léegi donc métier yooyu dafa am solo mais ginnaaw gi li ci am solo mooy bu ñu jàngee ba pare jël xam-xam bi ci anamu au moins comme ni ko euh, kilifa gi waxee ñu am ay accompagnement yoo xam ne ni dina leen mën a permettre ñu ubbi seen yëfu bopp demee ñuy wax ni ni kii directeur telle entreprise la kii directeur telle entreprise la ndax anamu ak Sococim ñoo lëkkaloo woon maanaam financement bi jugee ci Sococim anamoo ñëw def xam-xamam ci askanu Colobane Gouye Mille bi nga xam ne ni yaakaar nañ ne ni tat buñ ko défé dina len njëriñ suba dina indi ay xalé yo xamné ne ni leneen mooy nekk seen xel ludul manam banditisme wala lenen manam nek ci jàpp ni war nañu téye seen bop war nañu téye seen jabot lu nit nek ci biro am ko ñom war nañ ko mëna amal seen bop donc euh, bu wakodel ñëwé aussi ñu tok waxtaan ak ñom et je pense que question emploi des jeunes taxawna parce que comme luñ ko xamé il y a beaucoup de jeunes à Gouye Mourid et loolu bu mu amee ñu ñëw gëstu ci waa ANAMO seet nag lañu mu ne gunge ci convention bi donc loolu moo waral tey ñu toog signer convention bi pour permettre justement téeméeri jeunes tey ñu mun jàng ay métiers pour mën après doxal seen bopp am seen revenu et je pense que ça c'est important. beneen benn convention ak centre BTP Diamniadio boobu tamit ci beneen fànn la parce que boobu aussi fan fànn apprentissage la ak formation donc euh, neen jël ay jeunes yóbbu leen foofu jàngal leen yenn métiers yi et yàlla su leen mayee ñu mun a intégrer Sococim si benn bés. dañu nekk structure publique maanaam bu nekk ci état ñuy def formation ak di accompagner xale yi pour ñu am métier am ñu am xëy euh, Sococim jël ci seen responsabilité sociale d'entreprise loolu nga xamante ni ñoom dañ koy jël di ko def ci askan wi. ñu gis ni loolu buñ ko daan def dañ ci yóbbu nit ñi màkk ñu tabax ci jàkk ñu tabax ci sax église wala ñu tabax ci euh, nu mu tuddati euh, poste de santé mais bii yoon ñu gis ni euh, RSE bi dañ ko jëmale ci ci nit ñi ci nit ki maanaam téeméeri ndaw nga accompagner leen former leen jàngal leen métier ci ay métiers nga xamante ni yu ñu mën def après pour daan seen doole je pense que d'abord dañuy beral nuyoo dañuy njukkal euh, Sococim di wax ni yàgg nañu gis RSE mais bu mel nii ñu ngi koy soog a gis ñuy remercier bu baax d'abord. Euh, euh, le secrétaire général Pereira ci taxawayam ci engagement ba li meuna am di remercier bu baax aussi monsieur Konaté parce que dans la coordination quand même euh, tan téméri ndaw yombul donc bo fexé ba tan len ci ben quartier amna liguey bu ci bu ci am benen bi may wax rek moy ndaw ñi li leen di wax mooy ñu taxaw xamni ni li seen biru bop la parce que lu melni xeyna buñ na ko defoon ci ñu ne élection mo jup ñu ne ah dañuy pepp wala dara te sax dëkk doxul nonu dëkk day dox avant élection dox ci élection dox après élection mais lii li ci neex mooy ndaw ñi dinañu xam ni lii li ko ëpp daal mooy structure privée bu taxaw ni nu may def ba amal njëriñ samay dëkkandoo parce que gën a yege jege gën a yey te olof day wax ni xer way téye sàkkat da ciy sës ñi sës nga xamante ne waa guy murit lañu ñu fexe leen jàppale ba ñu am métier.